asalaamaaleykum télévision bu mag bii di Assalaamy TV eh, ginnaaw bi ñu leen eh, nuyoo eh, di sant yàlla bu baax di julli ci rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal rek Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla guddal fanam ak xalifa général bi nga xamante ne mooy xalifa général maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem xalifa généraux yi nga xamante si ni ñoo nekk ci biir dëkk bi yépp dañuy dugg Tiwaawan rek nuyu bu baax xalifa maam alaaji Malick ba fa toogal maam alaaji Malick eh, radiallahu taala anhu waaye nag foofu lañuy duggee waa kër Amady Ndar Seck eh, nuyu leen nuyu bu baax a baax eh, ñi nga xamante si ni ñoom ñooy waa kër Léona Niassène alaaji Abdoulaye maam waaye noonu la ñuy nuyoo ki nga xamante ni moom mooy waa kër Seydina Limaamu Al Mahdi waaye nag noonu lañuy nuyoo bu baax a baax a baax euh, waa Ceneba euh, maam Amadou Ndaat Seck njabootam di nuyu tamit mbooleem euh, kilifa diine yépp di leen ñaanal di leen wax ne yéen bi nga xamante ne suñu boroom yéen na leen ko yal na nekk yenu jàmm yenu tamit bi nga xamante ne yéen bu oyof ci barke Seydouna Muhammad barke borom Touba waaye tey nag ñu daal di ñëw ànd ak ñi nga xamante ne ni moom mooy tey suñu invité Eh, bu am solo di xale bi nga xamante si ni tey maanaam eh, xale bu am yar xale bu am dal xale bu xamante si ni eh, jàng na alxuraan ba xam bu baax a baax a baax ci wàllu xam-xam ci aas bi nga xamante si ni am na ko waaye nag comme ni ñu ko waxee rek tey dañuy waxtaanee jëm ci li nga xamante si ni moom mooy ah éducation nee naa la lu ñuy dund nag dafa nekk li nga xamante si ni lu ko tax a jóg mooy njariñu askan bi te yaakaar naa ne euh, ñi ñuy seetaan mbokk téléspectateurs yi rawatina ñi nekk ci euh, euh, bitim réew ak fii nga xamante ne mooy suñu réew ñu koy am tamit ci rajo bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di bokk di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm ci seen ànd bi ñu ànd ak ñi nga xamante ne moom mooy Assalaamy TV. waaye nag noonu la ñuy nuyoo euh, ñi nga xamante si ni ndeysaan ñoom la caabi féete ginnaaw di leen ñaanal euh, fa ñu ne yàlla na yàlla gaaw teggi leen ko ndax nattu la rek waaye ñaanal ko ñi nga xamante si ndeysaan dañu feebar nekk si lali hôpitaux yi moo xam ñi feebar nekk ci biir kër yi am nañu koy soo sooxaale te ñoo tëdd ndax njaboot gi yàlla ñu ngi lay ñaan sa màggaay sa yërmande yow suñu borom yàlla na yàlla boole saafara moom bu baax waaye yàlla na yàlla boole saafara lépp ci barke Seydina Muhammad salaay salaam waaye ñaanal ko ñi nga xamante si ndeysaan dañoo jiitu soxna Tambédou nee naa la euh, ku fi toog yàllaa la bàyyi waaye tamit que euh, ku fi ku dem yàlla la yóbbu waaye ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla yërëm leen te jéggal leen te xaar leen àjjanay firdaws yi si barke Seydina Muhammad barke weeru euh, yowmal asura bi ñu ne waaye nag soxna Tambédou tey ñu indi benn thème bu am solo bi nga xamante si ni mooy éducation maanaam yar yar. ku ne xam na li nga xamante si ni moom la yar di jariñ nit ndax ku tedd gi da doon wax bu ñett taxawee demal jël benn bi jàng bu taxawee xam-xam taxaw yar taxaw demal nga jël yar ndax boo yaroo lépp rek di nga ko am kon boog soxna Tambidou dama lay bàyyi nga nuyoo euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci Assalaamy TV. jërëjëf contentement ak mbégte macha allah di bokk yow jataay bu mel nii euh, saa su nekk ndax sa yar yow tamit comme ni nga ko waxee. ak sa teggin macha allah di nuyu ñëpp comme ni nga ko waxee si la ñuy bamtuwaat. Mm-hmm. Euh, di jiital ci nuyoo bi saa su nekk suñu xalif général kulu murit euh, Serigne Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ci wér mm-hmm. noonu lañ koy ñaanale Serigne am ni Modou Mbend di ko ñaanal kër kilifa diine yëpp. Mm-hmm. di ñaanal comme ni nga ko waxee rek ñi caabi féete ginnaaw ak ñi nga xamante ni dañu tëdd si lal hôpital wala ñu ngi si kër yi doxaale feebar yàlla fëgg seen bopp di nuyu nag saa su nekk suñu mbokku internautes yi ndax dañ ne feccu liit bu neexee yaa jaatee ca mbagg ya ca ñoom ñoo tey suñuy mbagg di nuyu sama mbokku immigré yi nga xamante ni ñoom laa bokkal nekk itali fu ci mel ni Caserta ak na ak feneen ak feneen ñu ngi leen di nuyu di nag njiitu kër gi tonton Serigne Fallou Galassi la mu nit bu baax macha allah nit bu am yar doon nit bu am taalube ñu ngi koy nuyu ak personne yi fi nekk ñëpp macha allah di am kontaan ak mbégte ci jàkkaarloog soxna Awa Bousso yaayu Serigne Fallou Galassi waaw euh, comme ni nga ko waxee rek nuyoo bi am na solo trop macha allah waaye nag soxna Awa Bousso euh, mi nga xamante si ni macha allah euh, moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax soxna si Diop. macha allah di xale boo xamante si ni maanaam loxoom set na trop macha allah waaye comme ni nga ko waxee rek dañuy ñëwaat rek euh, si biir kër gi nuyu bu baax sëriñ fàllu Galas sil di ko nuyu di ko siyaare di ko ñaanal yàlla lépp li nga xamante si ni moom lañ nama liggéeyal euh, Assalaamy TV ak dëkk bu sell bi di Touba yàlla kattanal ko. waaye tamit di jëfalaat bu baax ñi nga xamante ne si ni ñoo nekk ci euh, si. technicien bi nga xamante ne macha allah suñu réalisateur yu mag yooyu Habib Thiam macha allah ak mboolem personnel bi nga xamante si ni ñoo nekk fii ci Touba euh, ci Assalaamy TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ci liggéey bu rafet bi. Mm. waaye Sambédou euh, nga gis ne euh, maanaam li nga xamante si ni moom mooy yar. je pense que yar lan nga ñu si mën a wax. ci xamante si ni. mooy téléspectateur yi ñuy seetaan. waaw sëñ Massamba yar mën naa ci wax lu bëri ndax yar dafa doon loo xamante ni. mooy base nit ki nit ki dañuy wax ni baas nit basam mooy fu mu dëkk mhm. mais nit basam pour man mooy yaram ndax danga ko wax sànq ni ku tedd ki def ni su am am taxawee xam-xam taxaw yar taxaw jëlal yar bi mhm. ndax maanaam soo amee yar di nga mën a am ñett yëpp ñaar yi ci des mhm. kon sëñ Massamba ma gis ni yar lu am solo la ca dafa raflé suñ jamono ji ñu nekk rawatina ci ci ñi nga xamante ni mooy ndaw yi ndax mag mi juddu ba toll ni mu toll sax yaakaar naa ni pour kooku yaraat ko dina xaw a am problème dina xaw a jafe tuuti mhm. mais ki nga xamante ni ndaw la ca dañ ni yat ci tooyaa bi nga koy jubbanti mhm. ndax soo bàyyi ba mu woo soo jubbantee dafay damm kon ma bëgg ñu concentré waat ci ñi nga xamante ni ñoo di ndaw yi ndax ku ci mel ni soxna Maawo Bousso mi nga xam ne ay atam mi ngi tollu ci fukki at ak ñaar xam naa ne su ma jumulee mu mën a wax ni wàcc na alxuraan ñetti mhm. yoon ba ñeent mhm. li ko ko may mooy yar mhm. eh, ca dafa nangu ñu yar ko gis nga yar dafa am solo ci nit ndax dafa am solo ci dund am solo ci dee ndax dama daan dégg sa maam ni eh, nit ki nu mu mel noonu lay deewaale maanaam su nekkee da nga yaradiku wala danga nga ñàkk teggin sa dee noon lay mel day mm-hmm. ñàkk teggin wala day feeñ ci ni nga mel sa dund kon mm-hmm. yar doon loo xamante ni daal ñi ngi ñaaxaan ñi nga xamante ni ñooy waajur yi mm-hmm. rawatina suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Touba Mbacké ndax ku ne xam na ni Touba yar lañ ko xamee même soo fi dëkkee ci amuloo yar wàcc nga sa yoon parce que nit ki dafa am ay mandarga yu muy am ca mandarga boobu dafa bokk ci boo dëkkee Touba nga am yar am teggin am sutura am taalibe loolu mooy importance yar foo dem dañ lay jox respect ndax maa ngi fàttaliku benn euh, anecdote itali benn été benn tubaab jàpp benn suñu mbokk immigré mm-hmm. mais daf ko laaj ni ko tous say sénégalais mu ni ko si mu ni ko sénégalais bravo mm-hmm. mais si beneen année ba mm-hmm. mu jàppaat keneen laaj ko mu ni ko non ah, non sénégalais parce que sénégalais bravo comportement benn mooy sa comportement dafay bien danga nga brave mais tout yow nekkoo Sénégal parce que Sénégal du am comportement yu bizarre yi nga ne yow moom nga am mm-hmm. loolu moo tax yar dafa am lu am importance ndax dem na ba nasaraan si mm-hmm. xam ni ñun sénégalais dañoo yaru ñun sénégalais dañu yiw ñun sénégalais dañu am teggin dañu am sutura kon yar boobu fu ñu dem dañ ko yóbbaale kon likk waay suñu mbubb yar waruñu koy suñu summi à tout moment te moom la ñuy euh, wax rek euh, suñu yaru nañ koy di ci sol muy mbubb boo xamante si nii maanaam euh, da ciy am solo ci doomu aadama bi ñu gis ne tey ji nga xam ne fi jamono toll ndax boo xoolee tey jamono fi mu tollu ñu bëri ñu ngi naan est-ce que yar amatina teggin kersa amatul pense que tey boo xoolee fi jamono toll maanaam génération bi judd ak génération bi dem bokkul parce que boo xoolee ni ñi ñi nga xamante ñoo nekk mag ni ñu yaroo ak ñi nga xamante ne tey ñoo judd génération bi maanaam nit ñi nee nañ jikko yi ñoo yàqu ñi ne jamono ji moo changé tey mënoo xam fan nga ko teg parce que tey bu fekkee jikko yi ñoo changé mais jikko yi lan moo ko changé lan moo tey tax tey yar mun a manqué ci li nga xamante ne mooy suñu réew mi di Sénégal parce que dañoo amoon ay mag yi nga xamante si nii mm-hmm. ay mag yu amoon sutura lañ mm-hmm. ay mag yu daloon mm-hmm. mag yu amoon teggin ndax euh, teggin ak yar ba tey maanaam nuróo nañ nuróow ñu parce que boo amee teggin rek mm-hmm, mm-hmm. di nga mën a am yar mm-hmm. ndax ku am teggin dina xam la muy waxee xam la muy solo xam la muy la xam la muy nu muy doxee kon boog loolu noonu nekk na lu am solo waaye tamit euh, comme ni nga ko waxee rek ñi ngi fii Assalaamy TV euh, télé bu mag bi nga xamante ni macha allah nee naa leen euh, nee naa leen dañuy soog a door ci li nga xamante ni mooy suñu émission bu am solo bi muy lu ñuy dund waaye nag tey ñu jëlee ko li nga xamante ni spécialiste ko rek ki nga xamante ni dara mooy maam Cheikh a Fall. jaraw latt maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. Mhm. ki nga xamante si ni moo niital Bamba Bamba feeñ. Mhm. moo waral tey ñu daal di def nii rek def ay noir blanc waaye nag suñu suñu invité bi di euh, ki nga xamante ni mooy soxna euh, Awa Bousso Diop macha allah dama koy bàyyi rek après moom. Euh, mu daal di nuyoo après ñu ñëwaat ci li nga xamante si nii moom mooy euh, waxtaan bi ndax boo ko xoolee macha allah mm-hmm. euh, ku ñu yar la mm-hmm. ku ñu ku ñu defar la mm-hmm. ànd ak tamit sama mbokk male di ndoy maa ni maram ndooy ajaa ndooy uh-huh. macha allah yaa sayda ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye soxna awa ma bàyyi la nga nuyoo rek lan nga ñuy lan nga ñuy nuyoole waxal waxal ci kaw micro bi waaleykum salaam wa rahmatullah mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. waxal ci kaw Mhm. diggante 2007 2023 bi la jël diplôme. Mhm. loolu la loolu lay leeral mhm. noonu. 2007 2023. ci la jël li nga xamante si ni moom mooy euh, diplôme am. loolu tamit euh, mu nekk lu am solo. 2020 2007 euh, ba 2023 waaw na léegi mën nga ko ñëwaat ñëw répété si incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah macha allah soxna Awa euh, si euh, leeral yi am solo yooyu noonu macha allah gis nga ni mu leeralee li nga xamante si ni. Mm-hmm. Euh, moom mooy waajuram bu jigéen. dugg si Daara 2007. jeexalee ko li nga xamante mooy 2023 macha allah mais dafa mel ni da wàcce kaamil de wàcce nga kaamil yaa ngi si yaa ngi jàng xam-xam. waaw lan nga ñu mën a wax si ban aaya boo xamante si ni tey mën nga ñu ko taril boo xamante si ni bu gàtt lay doon rek. waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, ñu ngi si Assalaamy euh, TV. Euh, mhm. mhm. soo ko di soxna Awa. Mhm. bu sa Diop soxna Tambédou. muy waxtaanee li nga xamante si mooy yar moom ñu jël si moom exemple rek. ndax boo xoolee ni mu comportoo. moo tax ñu bëgg xale yi ak waajur yi. ñuy gën a concentré wu li nga xamante si ni moom mooy si njaboot gi. di leen bàyyi xel ndax kii boo ko xoolee xam ne tout tànk la. ndax yar gi nekk ci moom. ci xoolin bi ci doxin bi. ak tamit ci toogin bi. ak ci wax loolu nga xamante ne defar nañ ko. ñoom nee nañ daara tamit day def day yar mhm. waaye njàngale bu mu mënti doon war na la mën a yar mhm. waaye kii boo ko xoolee macha allah mhm. fa mu nekk di jàng teg nañ ko ci li nga xamante si ni moom mooy ah ci yar gu teggin bu ànd ak barke tàmbee du looy wax ci loolu euh, waaw jërëjëf sëñ Massamba loolu dafa am solo ndax li tax mu am solo daara ji dafa dimbali waajuram maanaam base bi mën naa ni waajuram moo ko def comme ni mu ko waxee soxna Mati ndax euh, te boo yaree sa doom mm-hmm. yóbbu ko si daara wala si école mm-hmm. da ngay dimbale jàngkat bi mm-hmm. mais su nekkee gone gi amul yar amul teggin amul sutura nga yóbbu ko si daara wala si école da ngay sonal ki nga xamante ni mooy jàngalekat bi parce que jàngalekat mën na yar mën na jàngal wante nag dafay fekk xale bi am base loola nekk ci moom mu dolli ko Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf soxna Tambédou euh, comme ni ñu ko waxee woon rek xam naa dañoo ñëwaat ci euh, soxna euh, Awa Bousso Diop. Mm-hmm. soxna Awa lan nga ñu mën a may rek ci alquraanu karim balaa maa ñëw nag xam naa xasida yi moom yaa ngi siy durus. Mm-hmm. yaa ngi durus yaa ngi am ay ay ay ay njàngale Sëriñ Tuubaa yooyu jàngale yooyu jàng yaa ngi siy ah. jàng. macha allah léegi. ay si kon li ñu mën a may si alquraan <laughs> Mm-hmm. أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون تكبير يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به تكبير وقد أمروا قلوبه ويريد الشيطان أن يدلهم دلالا بعيدا ما شاء الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون يصدون عنك صدودا جرجف صحنا بابا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf soxna Awa jërëjëf kontaan nañu bu allah am na solo am na solo. macha euh, allah tari na lu am mhm. solo. Mhm. Euh, comme ni ñu ko waxee rek soxna Tambédou. Mhm. yaakaar naa ne kii boo xoolee tey xam ne waajuram kontaan na ci moom. même ñi nga xamante si nii sax ñi ngi toog seetaan. kontaan nañ ci xale bi nga xamante ne mi ngi am fukki at. Mm-hmm. daal di wàccee alxuraanu karim mm-hmm. nga gis nu mu ko jàngee nu mu mm-hmm. amee dal waaye xam naa dinañu indil tuuti xadis wala mu indil ñu lenn ah, rek ci njàngale si waaw si njàngale tedd ki ku tedd ki xam naa loolu dinañ ci ñëwaat soxna Tambédou Euh, ana tey lan la waajur yi di xaar. Mhm. lan la ñuy xaar si si si njaboot gi. man sax may tullu ay xéewal de. <laughs> mënul ñàkk. ndeysaan macha allah mhm. euh, tey waajur yi lan lañ mhm. lan lañ war a mën a euh, wane. tuuti rek ci li nga xamante ne jëlaat jàngat gën a masifewuwaat. gën a taxawwaat. gën a concentré ci. ñi nga xamante se nii mooy mm. la ku tedd ko doon wax sëriñ Saaliw Mbàkke ba radiyallahu taala anhu mm. ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ sëñ Tuubaa mm. defoon ca mag ña mm-hmm. loolu tamit est-ce que waajur yi ñu ngi ciy bàyyi xel bu a baax a baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. waaw <laughs> sëñ Massamba eh, maa ngi jéggul nag ngeen baal ma mbokk téléspectateur bi nga xamante ni ñooy seetaan xam nga rek ak internet mbokku internet yi eh, xale bi li mu jàng dafa daw sama yaram dafa daw sama yaram ak yar bi mu ko jàngee ak xam-xam bi eh, ma xam ni ki ko yar macha allah yar na ko ki ko jàngal tamit dolli na mm-hmm. kon yaakaar naa ne ku ko seetaan lii war nga gën a góorgóorluwaat ci sa njaboot. Mm-hmm. war nga gën a góorgóorluwaat ci li nga xamante ni. Mm-hmm. Euh, mooy yar bi ndax yar mm-hmm. dafa doon loo xam ne <laughs> dafa dafa am solo. Euh, mooy jigéen <laughs> <laughs> jooy loolu yombul waaye tey moom da ngaa jooy. waaw damaa daanu leer. nga daanu leer fi mu ko jàngee la. macha allah ak bis bi mu ko jàngee. Euh, ak li nga wax tey. ñu jël ki nga xamante ni mooy nit yoon bi di Cheikh tax ñu déguisé woo comme ni ñu déguisé woo ni tuddee ko ko muy si noir blanc yi ah, ca maanaam lam doon woote uh-huh. dafa bokk tey ci lii mu def muy bëgg yoonu yàlla mm-hmm. topp yàlla mm-hmm. topp ki nga xamante ni mooy Serigne Touba ndax topp Serigne Touba mooy topp yàlla parce que ndigalam lépp Serigne yàlla la loolu moo moo tooyal sama xol may ñaax waajur yi nag nga xamante ni ñu ngi ci biir kër yi yor jaboot gi mhm. ñu xool ci soxna Awa Bousso mhm. ndaw yi tamit ñu xool ci soxna Awa Bousso parce que at yi mu am man nga ni at yu ndéew mhm. mais nag dafa jël juróom-ñaari jikko ci kiñ ko tuddee muy soxna Awa Bousso yaay Serigne Pallou Mbacke borom naa moom am macha allah turandoom bu taree nii te jaaxal te soxna Awa Bousso moomu Mhm. Euh, euh, est-ce que xam nga ne euh, Serigne bu Bousso moo ko jur. Hmm? waaw Serigne bu so mhm. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Serigne Fallou da doon wax nis tur rek. Mhm. ma daal di bokk ma Alaaji Malick jur ma. wala maam Ousmane jur ma. ndax maam Ousmane di waajur ki nga xamante si ni moom mooy. sa maam Alaaji Malick. dafa avant muy génn àdduna dafa dencoon ñaari soxna. ñaari soxna yooyu. Euh, ku ñuy wax soxna Fawa Duyale mhm. moo jur alaaji Malick mhm. ak ku ñuy wax soxna Mati Ñang mhm. soxna Mati Ñang moomu euh, ginnaaw ba mu liggéeyee ba wàcc ba maam Ousmane génne àddina liggéey ba wàcc ci lañ jox ko ah góoru soxna Jaara Buso soxna Mati Ñang moomu càmmiñu soxna Jaara waaw jox càmmiñu soxna Jaara sëñ Mbàkke Buso mu am ci mu am ci euh, soxna Mati Ñang mu am ci soxna Awa Buso mu jël soxna Awa Bousso màgg ñu jël ko dénk ko Serigne Touba. moo tax mu am sëñ Fall. moom sëñ Fall macha allah moo tax sëñ Fall di ko waxee noonu moo tax kii. waaw allah. su defee lii wàcc na waaw turam bi maanaam mm-hmm. tur euh, juróom-ñaari jikko yi. Mm-hmm. yàlla na ko gën a gën a gën a gën a dal ci moom. moo tax mm-hmm. réew mi benn lañ. te xoolal fa ñu jógee ak li nga xamante ne lépp ci teggi nag yar doomam moo ko indi. soxna Tambédou. Euh, Massamba loolu daf maa ñor man yar dafa ma ñor. teggin dafa ma ñor. yiiw daf ma ñor. xale bi ñoo dëkk. Mhm. daf may romb rek di jàlli. Mhm. mais saa yi ma rombee maa ngi ko doon bàyyi xel. effectivement. Euh, di bàyyi xel ci nam mhm. ci ni muy nuyoo ci yaram ci doxinam. yàlla def ñu ñëw fi nga xamante ni mooy Assalaamy TV. am fi euh, émission yi ñu far di def. sama première réaction mooy moom laay njëkk a toogal dalal ko ci plateau bi. ngir yaram ngir alxuraan bi. bi nga xamante ni moo nekk ci moom lii mooy ak dikkam fi tey macha allah dama fonk nit ku yaru mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. acca bismillah bismillah son Tambédou aha loolu waa moo tax euh, comme ni ñu ko waxee rek tey moom danga am émi euh, euh, émission je que tey boo xoolee boo xoolee boo xoolee li nga xamante si ni tey maanaam moom moo fi am Euh, mm-hmm. di euh, premier euh, numéro bi nga xamante se ni moom lañ def fii si émission noo ko dundee mm-hmm. waaye mu nekk loo xamante dañoo dépare ci éducation mm-hmm. parce que lu waay mën a am lu waay mën a def te àndul ak yar dara baaxu si moo tax ñu daal di commencé li nga xamante se ni mooy yar ndax fii ci Assalaamy TV boo xoolee tey assalaam mooy jàmm pare yar moo fi nekk yar moo fi nekk teggin moo fi nekk taal bi moo fi nekk ak li ñu teertoo ku ne xam na ne jataayu murit daa war a am café jataayu murit daa war a am gerte jataayu murit dafa war saa su nekk muy xéwale <laughs> gis li ñu teertoo macha allah macha mhm. <laughs> moo tax loolu noonu lu am solo la moo tax mhm. euh, dañuy gën a euh, góorluwaat euh, gën a mhm. gën a takkuwaat waaye na ngeen xam ne sa émission noo ko dundee jàpp leen ne li ñuy dund li ñuy dund maanaam nekk na loo xamante si nii Euh, maanaam bëri na luñ fi war a mën a décortiquer. Mhm. waaye tey dañuy ñëw waxtaan mais yar tamit mhm. euh, war nañ ko mën a nekk tamit war nañ mën a nekk ci kaw tali bi mhm. yar mën na war a nekk ci biir kër gi. yar war na mën a nekk tamit fi nga xam mooy bërëbu liggéeykaay. yar war na mën a nekk ci li nga xamante ni mooy karce bi nga dëkk. ndax euh, am na ñoo xamante si ni quartier bu ñu dëkk. yaakaar naa ne bu ñu leen gisee rek fit yëpp dem. buñ leen séenee rek xel yëpp jaax ñu jaaxle. Mhm. ñàkk seen ndax seen ñàkk yar. Mhm. kon loolu noonu tàmbeedu lan nga ñu si mën a wax ci ki nga xamante dafa yaru nekk ci biir kër gi. waaw yaru moom dafa dafa doon loo xamante ni dafa vague dafa yaatu. dafa doon am solo yar yemul rek si biir kër gi. Mhm. yar rek si daara bi ngay jànge yar yemul rek si école bi ngay jànge yar dafa wër. gisoo sànq man la tubaab yi dañ doon gis kenn ni la yow sénégalais nga tax da nga yaru. xam nga kon yar bi jéggi na Sénégal mhm. dem na ba Europe ndax nit ñu yaru ñaan fa moo tax yar doone rek dama yaru si biir kër gi mhm. da nga yaru si mbedd mi mhm. da nga yaru si école bi da nga yaru si daara ba ba ci jumaa ji ngay jullee dafa laaj yar ba ci jàkka fu mën ba ci marché fu nekk ba ci oto yi ngay dugg dafa am yar dafa laaj yar ki koy dawal dafa war a yaru client bi dugg kasalika dafa war a yaru yar dafa doon loo xam ne dafa wër saa su nekk rek Euh, war nañu ànd ak yar euh, ànd ak teggin ànd li nga xamante ni tamit mooy sutura parce que yar dafa ëmb lépp waaw yar dafa ëmb lépp. waaw mm-hmm. ah, comme ni nga ko waxee rek ni euh, ngi si ba tey si li nga xamante ne moom mooy émission bu mag bi. Mm-hmm. Euh, li ñuy dund euh, ñu war a waxtaane tey li nga xamante ne moom mooy yar mm-hmm. waaye tamit moom soxna Awa Bousso Diop mi nga xamante ne tey ki nga xamante ne moom mooy Serigne Fallou. Serigne Gallas Sylla mu baax mi macha <laughs> allah nga xamante ne tey moom moo moom moo koy jox cadeau bi. xam naa moom it dina ñëw. da ñëw raisonné wu ñu léegi ci biir. ci plateau bi. Mhm. tamit euh, dina si am solo trop xam naa ne mhm. euh, léegi léegi rek euh, balaa émission bee jeex. Mhm. moom dina ñëw bu ko defee sax moom mooy jox li nga si ni mooy soxna Awa Bousso Diop nga xamante ne moo ko jox kado bu rëy boobu. macha allah mu nekk lu am solo. comme ni ñu ko waxee dafa mel ni am na moom soxna Awa Bousso. daa mel ni am na loo bëgg loo bëgg loo bëgg loo bëgg a faram fàcce foofu de. ah. ayca bisimilah. ndeysaan du tànk la musóor moo ko jur bokk ak maam jaara ndey ak masha allah dénent bi am na benn xadis bu mu doon wax naan mhm. mankaana képp ku nekk yuumee nagam billaahi sa yàlla mhm. wal yawmil aaxiri ak bisu penc mhm. faleexul dana wax xayran aw yiw aw li yasmut wala mu noppi dénent bi nee ku nekk na gëm yàlla mhm. gëm bisu pénc mhm. te na wax yiw mu ko mënul na noppi mhm. macha allah dégg nga dégg li mu wax. macha allah daanaa la loolu am solo la. tey damay dëgërlu du ma jooyaat incha allah tey moom da nga dëgër ndax bul yàq suñu bul yàq suñu kii bi. <laughs> damay hmm. waaw macha allah xam nga euh, li ëpp solo ci doomu aadama. mooy euh, mooy comme li mu wax nit ki boo demee bay àddu. Hmm. na nga àddu yiw. Hmm. na nga àddu luy defar. mais bul àddu mukk loo xamante si ni saa bu génnee rek. maanaam. day indi jéeya yàlla ñu yàlla musal si mooy yee fitna mm-hmm. waaw daal mm-hmm. di yàq mbokk daal mm-hmm. di wax loo xamante si nii boo ko waxee wax bal la boo xamante si nii bu xasee ba génn fii ba nangam mën nañoo fàttalikuwaat wax yooyu moom moo tax lu lu mu wax lu am solo la mhm. nit ki sa gémmiñ mënul génne yiw mhm. mënul génne kàddu gu rafet mhm. na nga noppi ndax ñun ku tedd ki loolu la jàngal ak ñi nga xamante si ni tey ñoom ñoo fi nekk kon soxna Tambédou wax na wax bu am solo ba tax na dégg nga mu ko mu ko di soxna Awa Bousso euh, nga xamante ne radiallahu anha nga xamante ne kooku euh, maanaam jàmbaar la euh, macha allah jural ñu Serigne Fallou Mbacke Galas Baye Mbène mi ak euh, soxna Tambédou euh, ba tey ñu ngi si Assalaamy TV euh, di wax rek suñu mbokk internet yi. Mm-hmm. peut-être bu fekkee ne numéro bi jàppandi na. Mm-hmm. ci sama technicien bu fekkee ne mën nañ ko joxe nga wax ma ma daal di koy. Mm-hmm. siiwal. ci mi ngi noonu si vingt 628. 53 euh, 53 bu fekkee ne euh, jàppandi na rek euh, yow sama technicien bu ñaawul bi macha allah. <laughs> ministre laa ko Habib Thiam. <laughs> Habib Thiam ministre Habib Thiam kooku moo nekkoon premier ministre. waaw boobu laa ko tudd Abdou Diouf. <laughs> c'est long macha allah réew mi Sénégal comme ni ñu ko waxee rek di dëkk bu sell bi di Touba. nee naa la boo xoolee yar gi nga xamante ne ku tedd ki def na ko fi. Mm-hmm. yaakaar naa ne képp koo xamante si nii rek. maanaam da ngaa jël beneen yoon rek yow yaa ko fi indi waaye fekkoo ko fi. déedéet. yàlla amul lu ñaaw amul lu bon. kon boog euh, soxna Tambédou. Euh, mm-hmm. nañ nit ñi waat xel bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. ci li nga xamante si ni moom mooy yar ak teggin. ak tamit li nga xamante ni moom mooy sutura. Mm-hmm. xam naa yooyu tamit yëpp dinañ ci ñëw incha allah. incha allah waaye tamit ma bàyyi la nga décortiquer tuuti rek ci li nga xamante si ni. moom la soxna si wax ndax nit ki boo demee bay wax. te li ngay wax mu nekk loo xamante si ni day yee fitna. Mm-hmm. wala luy yàq la. Mm-hmm. na nga ko tegaat ci suuf daal di wax loo xamante si ni. Mm-hmm. waanaam luy joxe yiw la luy joxe yiw la. Euh, jërëjëf euh, sëñ Massamba. Euh, kii na nga tuddati. monsieur le ministre Habib Thiam. bi nga xam mooy technicien bi fii. <laughs> macha allah dama seetaan benn vidéo ma démb. muy wax ni paaka bi ma jam du moo ma rey. ndax ginnaaw gi miin na paaka mais bi ma gestoo ba gis ki ma jam paaka bi boobu laa dee ndax foogoon na waaye ku am dégg nga mm-hmm. ndax foogoon naa ni doo wax jox ju ñaaw ji sama ginnaaw foofu la foofu la génn mu am solo dem laa euh, ma ko ci félicité macha allah di ko wax ni ministre <laughs> waaw Serigne Habib Thiam nekk fii comme technicien macha allah fi nga jàpp foofu la euh, muy li nga xamante ni dafa bëri léegi si jamono ji lëmbee askan wi mm-hmm. muy wax ju ñaaw ca euh, sëñ Massamba damay wax ni wax yu ñaaw yooyu yëpp doo dégg am na ñoo xam ne ba alaay mu duñ ci bokk mm-hmm. loolu dafa bokk ci li dañuy dellusi rek si yar bi mm-hmm. gis nga suñ la yaree mm-hmm. nga am yar am teggin am sutura xam fi nga teg sa tànk am na loo xam ne kenn du la ci fekk ni wax yu ñaaw nii jëf yu ñaaw nii wor ndax xanaa xamoon yooyu yëpp reewaan daf ko ëmb ñàkk yar dafa ëmb wor dafa ëmb loo wax ak sa nawle te bu ko teg ko fële ndax doo rus yow teggi ko parce que yaa ngi préparé moom su ñëwee li mu lay wax ak loo koy tontu kon da nga ñàkk yar non soo amee yar da am looy jomb mhm. da am looy bañ da am looy rus da ngay am loo xamante da nga naan di du ma ko def mhm. xam nga dama rus ala bokkul ak dama jomb gis nga ci jomb nga teew ak nga bañ a teew du ko def mais ki la rus ah. saa yu ñàkkee gis sa ñaari bët yi dina jëf la nga xamante ni moom la ruse woon te loolu lépp yar daf ko ëmb mhm. yar dafa doon loo xamante ni géej la mhm. lépp a ngi ci biir comme ni ma waxee émission li ñuy dund ci fii ci Alsalam TV mhm. dox dajala ndax li ñuy dund dox dajala lépp a ngi si biir mais yar dox dajala lépp a ngi si biir kon nañ defaraat jikko yi macha allah am na solo. nañ defaraat jikko yi am na solo comme ni ko soxna Tambie du waxee mu nekk loo xamante si ni yaakaar naa ne ku ci nekk rek yaakaar naa sa bopp doy na la misaal. <laughs> waaye tamit eh, ku ci nekk tamit war nga mën a sóoraale sa morom. <laughs> lu ñaawul lu ñaaw si sa bopp waroo koo ñaawale keneen. <laughs> li rafet si sa bopp yéene ko nit. bu nit amee lu baax. yéene ko ko mhm. bu nit amee tamit loo xamante ni safaan la mhm. euh, na nga ko ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala mhm. yàlla mi nga xamante si ni euh, moom mooy soppi nit yàlla yàlla soppi ko euh, ba tax na mi ngi noonu comme ni ñu ko waxee rek numéro bi mi ngi si suuf écran bi di 88 628 53 53 euh, képp koo xamante si ni rek bëgg nga participer ci émission bi mhm. tey ñuy waxtaane li nga xamante si ni moom mooy éducation maanaam yar mhm. euh, yar nag euh, yaakaar naa ne lu am solo la ci doomu aadama mhm. maanaam jox nit ki respect yàlla moo bëgg lu yaru moom borom bi subhaanahu yàlla bëgguma la sëñ Samba da koy xool soo jullee ak sooy julli sooy rukkoo mhm. da ngay yaru mhm. booy sujjóot mhm. da ngay yaru soo paree bay tàll sa loxo di ñaan sa borom yar nga koy ñaane effectivement gisoo kenn ku jul di ñaan di def ñaay loxo nii ngay def di tàllal ak yar sëgg kon toroxlu doon toroxlu yar mooy toroxlu <laughs> toroxlu nit ñi ñoo xamul di wax yar mais yar mooy toroxlu waaye man sa toroxlu si kanam suñu borom loolu lenn lu ne la xanaa man dama ko mën nag ah, baax na. ah soxna Awa Bousso <laughs> sa yaay ji ma ne ko toroxloom si kanamu si kanamu si kanamu suñu borom. <laughs> da ngay yàlla rek yow. <laughs> waaw lekkal si gerte Assalaamy TV bi naan si café macha allah seen plateau teg ay gerte teg ay café man daal Assalaamy daal lay topp. <clears throat> damaa xam ne. Mhm. yow sa sa toroxlu rek ci war a wéet ak yàlla suñu borom loolu lu ne la. ah misaal baa ngi nii de gis nga ba nii. gis nga ma ni ma <laughs> allah mm. <laughs> comme ni nga ko rek mm-hmm. yaakaar naa ne moom <laughs> waaye am wax nga wax bu am solo. Mm-hmm. waaye nag euh, jamono ji moom yar nit ñi dafa xaw a jafe. Mm-hmm. Euh, si euh, lan maanaam maanaam dina dina dañoo am benn comportement. comportement bu nga xamante si ni mooy maanaam gaaw a yàkkamti dañoo yàkkamti te yàkkamti bu la dalee boo yàkkamtee. li ngay def du baax doo tal sa bopp. ba pare doo ànd ak yar te doo am conscience tranquille aisément doo ko am. xanaa xamoo doguma la. Mhm. Euh, soo yarwul sax doo julli julli bu normal. Mhm. xamoo si loolu. ah bon. Ah, parce que boo yarwul. Hmm? doo def lu egg gisal soxna ma xaw bi muy tari dafa toog ni tekk concentré wu. Mhm. yaru. tari lu normal mais da gis des fois koo xam day julli sax man dama naan est-ce que kii xam na lan lay def. parce que li ma la wax yaree dëkku. day feeñ ci lépp looy def booy lekk daf ciy feeñ mhm. booy naan daf ciy feeñ mhm. sooy wax daf ciy feeñ ñu mhm. kasaali ko booy dox yar dafa ëmb lépp lépp looy def rek di ko defe yar mooy ànd ak dal man nag yar woon naa mais dinaa ko gën a yokk parce que asalaamaaleykum moom gën a xam nañ ba pare tonton gàttal tonton. <laughs> Serigne Fallou Fallou Sylla moom dafa yar ba pare xam naa ne day xam naa ne sax moom bu fekkee jàppandi ne sax mën na ñëw. <laughs> Euh, bu ko defee rek euh, mu daal di ñëw euh, daal di am xam naa peut-être. ndax lu tax ma ni ko yaru la. Mhm. fukki at wala fukki at yu teg. Mhm. ku ko jiite Lamp ndaw. man yàgg naa dégg gala Serigne. doo tamit nit ko yaree di ko. Mhm. te foo ko tudd si àdduna bi xam nañ ko. Mhm. bërki démb rek am na ku may waxal di ko wax euh, kii bi yónnee ko ko après wax ko. Mhm. ki moom ma kan moom moom télé bi ma wax ko ko mi ngi mi ngi mi ngi ba Amérique ah. mu ni ma ah, xam naa ko Fallou Galass Sylla ci mu dëkk daal mu xam naa ko bu ah, baax mhm, social moo tax yaru ak def lu baax am solo xool fa mu nekk Amérique ak Sénégal xoolal ni ñu soriante xamul woon ni man dinaa ko xam te moom xam naa ko moom moom ay at doo ko xam mm-hmm. moom mi ci loo xam ne matagul deux mois mm-hmm. mais lii la ma tontu te bu doon leneen tamit noonu la koy waxee mm-hmm. moo tax yar am na solo macha allah waaw xam nga moom idole la xam nga tey ku nekk si rajo nekk suñu euh, DG nekk tamit doyen boo xamante si ni macha allah yaakaar naa ne même doguma la beneen fàllu si la bi tamit directeur programme noonu la yaroo kon ñaari fàllu moo ne ci kër gi. waaw <laughs> <laughs> <laughs> moo tax yaa ngi sëkk macha allah. soxna Awa Bousso seen waajur bu jigéen a nii toog. am na solo macha allah daal di wàcce alxuraanu karim. Mhm. ba di jàng xam-xam. Euh, boole ko yar mhm. ak teggin mhm. ak xamal leen ndax ñoom ñi euh, jàngaluñu leen rek euh, maanaam li nga xamante si ni moom mooy jàng rek da leen di jàngal liggéey jigéen soxna Awa. ngi leen di jàngal liggéey jigéen. moom day toog daf ah? may romb day ndugg si. ah day ndugg sama boutique. ah day ndugg. ah day ah, ndugg si ah, jàmbaar la kat. ah day ndugg dugg. mën nga toog <laughs> wala mën a ko <laughs> yal na yàlla barkeel. allahumma amiin ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayca mi ngi noonu comme ni nga ko waxee rek euh, euh, yéen a ngi si euh, Assalaamy TV waaye nag ñu ngi nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel. Mm-hmm. rawatina nag suñu mbokk auditeurs yi bàyyi xel si rajo bi aussi. Mm-hmm. rawatina international ñi nga xamante ne mooy waa diaspora bi. xam naa diaspora bi moom sa diaspora la man moom xam naa deew ma diaspora. deew ma deew ma ci kaw mais yow yaa dem ci kaw xam ca xam lañ na ca kaw. damay yóbbu antenne bi foofu. itam la jëm. <laughs> incha allah waaw mi ngi noonu comme ni ñu ko waxee rek mën ngeen a def euh, si seen euh, woote ci numéro boobu noonu nga xamante ne moom moo nekk ci suufu écran bi euh, ci 88 628 53 53 mën nga jaaree foofu noonu rek bu ko defee nga daal di bokk ci li nga xamante ni moom mooy euh, émission bi def sa mm-hmm. participation mm-hmm. waaye tamit euh, comme ni ñu ko waxee rek ñi ngi ci waxtaane li nga xamante si ni moom mooy yar ak teggin mm-hmm. nga xamante ne loolu ku mu nekkul ci yow rek dese nga lu bëree bëri loo am alal alal alal alal te amoo yar yow sa alal jooju day mujj nax saay rek loo am xam-xam xam-xam xam-xam te amoo yar sa xam-xam xam-xam boobu day mujj rek te yar bu nekkee ci yow xol ba day rafet. da oyof. waaw da ngay da ngay tranquille da ngay aisé. da oyof waaw da ngay dangay ngay da ngay da mel ni sëñ Bamba. wala directeur. waaw da <laughs> parce que yar bu nekkee ci yow xam-xam moo lay wuy si. Euh, dëgguma la si loolu mooy nuyu sama sëriñ sama xarit sama genn wàll sama waajur. Mm-hmm. muy sëriñ Moustapha Abdoul Ahad. sëriñ Moustapha bu sëriñ Abdoul sama xarit la. Mm-hmm. sama waajur la. Mm-hmm. mais saa yoo fa demee. ci suuf nga koy fekk. mu toog du tëju du nëbbatu boole ak joxe bi ma duggee sànq gis directeur fi mu tëdd moom rek la ma jox wallaay ndeysaan ndax noonu lay dundee benn bis mas naa ko laaj mu ni ma moo yow suuf si loo ci moytu allahu akbar lu fi nga jëm gis naa la ngay ñëw di jéggat man ko déet man sëñ bi dimbali ma rek de bëgguma fenn dama lay wax rek ci suuf nga jëm gis naa la ngay jóge la ñëw di jéggat di faxas hmm. mu ne ma suuf si ci nga jëm kon jërul hmm. moytu mu lu am solo muy sëñ Moussa Abdou Lahad maa ngi koy nuyu macha ko ziyaar di ko jox wàccuwaayam hmm. Hmm. xam nga xam nga xam nga ñooñu moom <laughs> <laughs> leneen lañ leneen lañ ndax ñoom dañoo dëddu àdduna soo xoolee eh, ku ci mel ni Serigne saaliw rek radiallahu taala anhu Serigne Saliou Mbàkke nga xamante ne eh, kooku booy xool yar ba egg ci ci moom rek wàññeeku yaru ba la ko du xool lay wallaay yaru maanaam boo yaroo xol ba day rafet mm-hmm. sa jëfin day rafet mm-hmm. sa xoolin day rafet sa doxin day rafet mm-hmm. mais bu fekkee ne yaruwoo soxna tàmbir ak loo mën a am jàppal ne man ak yow ñoo yam rek da ngay pett rek <laughs> waaw yàlla nañu yàlla may yar yàlla nañu yàlla ah, may yar comme ni ñu ko waxee rek eh, tàmbedu eh, xam naa ne eh, lu ñuy desee si ay simili xam naa ne du bari ndax xam naa ne peut-être dañuy xaaraale rek sox sëriñ Euh, Galas Sylla mhm. bu ko defee rek euh, le DG moom mooy décorer ki nga xamante si ni mhm. euh, moom mooy soxna Awa Bousso mhm. nga xamante ne Diop nga xamante ne moom macha allah <laughs> ànd ki nga xamante ne mooy Adja Ndoy Ndoy maa ni maram Ndoy sama lébu bi la macha allah nee naa la yow maam soxna Kumba Ndoy nga bokkal ba tax na fii suñu suñu suñu dëkk bi di Sénégal dafa am ay ay ay waajur yu baax ay jigéen ñoo xamante si nii maanaam ay jigéen yu sell yu yiw yu baax lañu ndax boo xoolee li tey ñoom euh, noonu lañ fi noonu lañ fi sëyee mm. maanaam sëy bu ànd ak yar sëy bu ànd ak teggin mm. sëy boo xamante si ni tey moo tax ñu meññil lu baax li mm-hmm. Mm-hmm. ndax suñu boroom dafa ne jigéen Euh, euh, maanaam magasin la bi nga xamante ne suñu borom moo fay denc ay mbootam mhm. waaye boo xoolee ku ci mel ni soxna jaara Buso radiyallahu taala anha mhm. Mhm. nga xamante ne lu mu liggéey biir Mbàkke Kajoor fi nga xam moom mooy Mbàkke Mbàkke xewar 33 ans waaw Mbàkke parce que moom euh, foo xuru Mbàkke foofu la nekkoon ndax dafa yàgg maanaam ba muy quitté di dem Poroxaan maanaam ñaari at rek la def Poroxaan déedéet dellu si suñu borom ñaari at moom la fa soxna jaara def nga xool maam moo Anta Sali mhm. li nga xam daara ji mu yoroon waxuma la université sax waaye romb na université mhm. moom moom sa maam moom Anta Sali daara ju mag a mag a mag la yoroon daara joo xam ne ndongo yi ñëpp ñi ngi naanee ci li nga xamante si ni moom mooy ndoxu maam jaara bu sa moom muy rooti si si teen ba di ñëw mu nekkoon koo xam ne dafa jaayanteeg boromam mhm. comprendre nga gis ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mhm. kon yaakaar naa ne euh, jigéen tamit war na mën a gën a góorgóorlu ci si si néegu sëyam yar yar yar ki nga xamante si moom mooy doomam mhm. mais yar googu nag bala mu koy am dafay wan si borom këram ba pare mhm. ndax balaa ngaa mën a yar sa doom da ngay yaru si sa borom kër boo yaroo sa boroom kër mën a éduquer sa doom ndax sa doom si yow lay refee repère kon loolu nday seetu la waaw mu ngi noonu ba tax na daal euh, comme ni ñu ko waxee rek euh, soxna du waaye euh, dañuy doxal la xaar ki nga xamante si ni moom mooy Serigne Fallou Galas bu nga xamante si ni moom mooy PDG kër gi mhm. bu ko defee moom mu ñëw daal di jox ki nga xamante si ni moom mooy soxna Awa Bousso soxna Awa Bousso jugal <laughs> jógal ma jógal taxaw noonu rek waaw sëñ bi ñëw ah, macha allah ñan nga ñëwee voilà voilà waaw toogal allah ah, waaw ki ngeen gis nii moom mooy sëñ Galas mm-hmm. euh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax waat waaye jërëjëf si la jërëjëf si la ñu ngi lay fay si la ñu ngi lay fay soxna Awa ci kaw <clears throat> di am mbégte lool nag. ci li nga xam ne moom ngeen def tey. muy émission bu njëkk ci li ñuy dund. ñun li ñuy dund mooy lislaam. li ñuy dund mooy ak taalibe. te ku wane lii xam ne jigéen baasam mooy yar. ndax boo xoolee ku mel na Sayyidatuna Khadija. ku xool ku mel na Sayyidatuna Aïsa. muy ñi nga xam ne ñoo toppoon yonent bi sallallahu alayhi wa mm. xam ne jigéen yàgg naa am ndam ci lislaam mm. waaye boo xoolee ku mel ne soxna jaaratullahi mariama buso mm-hmm. mi nga xam ne moo sëriñ buso bi mi yaayi soxna awa buso ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. xam ne kon soxna awa buso soxna jaaraay bàjjanam mm-hmm. mu mel ni ku mel ne Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Tuubaa waxoon na soxna awa buso na ko bu ëllëgee lu ma man ci góor ñi da ko man ci jigéen ñi loolu mm-hmm. sëriñ Tuubaa bi muy taalif xasid ak matlabu sifa yi mm-hmm. ci tawat la ko fekk mm-hmm. waaye day wax soxna Awa Bousso di bind nga xam ne matlabu sifa yi lépp soxna Awa Bousso moo ko bind kon bu yàlla dogalee soxna Awa mii ñëw di tuut tànk jàng alxuraan da ngeen dalal ko fii tey référence la ci yeneen xale yi ndax dañu wax ne wan ma sa goney dëkk mm-hmm. wan la sa magu ëllëg mm-hmm. kon mm-hmm. yaakaar naa ne ñu koy ñaanal mooy suñu borom sàmm ko te àggalee ay ay ay ay mébéti way juram ci moom def ko it muy muurum lislaam di jaajëfal it mbokk mi nga xam ne moo ko yónnee kado bi nekk bitim réew moo nga ba Italie waaw nekk ba Italie muy liggéey bu am solo di jaajëfal soxna Tambédou sëñ Massamba ndax lii day encouragé xale yi neexal. Mhm. xale yi jox ko kaamilam alxuraan ak ay bindukaay. Mhm. mooy yow encouragé ko ko teg ko ci aw mhm. yoon. te lii rek mooy li mat a wane. ñuy wax toujours li mat a wane wane wuñ ko. li mat wane rek la ñuy wane. dëgg la dëgg la kon soxna Awa Bousso. jógal soxna Awa borom def la man jógal taxaw jógal taxaw nangul nangul waaw daa mel ne mën ngaa toog noonu de. Ah, <laughs> tabel baa ngi noonu mhm. kon nag mooy sa wettal mhm. sëñ Tuubaa nee na bi muy dem ci géej gi moom la yóbbaale waa seexi kitaabullaahi mhm. wal Mustafa nabi wax na it ne ci alxuraan laa dëkkaaleeg sama borom kon nag yow yaa ngi noonu ñaanalal ki nga xam ne moo la ko jox. ñaanal say waajur. suñu borom def leen. ñaanal télé bi ñaanal la si ñaanal télé bi ak rajo leen di njëkk a nga ko seetaan. amiin yaa mu ngi noonu comme ni ko waxee rek noonu la ko defee moom it ñu koy jaajëfal bu baax a baax. di PDG ci kër gi. di def liggéey bu am solo. ci biir kër gi waaye nga xamante boo xoolee liñ fi réagir yi nga xamante ne nekkul loo xamante si ni tàmbee du lu ndaw mhm. euh, parce que euh, télé yombul euh, ndax boo xoolee ci njàmbaaram mhm. ci pastéefam mhm. ci nangoo liggéey ci tamit ak courage am ak tamit gëm boppam moo waral tey mu réagir lu mel nii ndax boo xoolee fii Euh, ni mu mel nga xamante ne ah moom mi kat liggéey na fi liggéey bu am solo mhm. ndax moom it euh, ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mhm. euh, di ko ñaanal yàlla li mu mën ren yàlla na ko mën déwén ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi nga xamante si ni tamit moom la nama liggéeyal yóbbu yóbbu ko kër gi mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom yàlla suñu borom kàttanal ko ak mbooleem ñi nga xamante ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam barke borom Touba barke maam Cheikh Ibrahima Fall barke Sëriñ Muntaxa Basiru mu yàlla am na ko mën na ko yàlla ko suñu borom def soxna Tambédou euh, nekk na lu am solo gis nga li nga xamante ne mooy décoration boobu nga xam décoré nañ ko soxna Awa Bousso Diop mhm. euh, mu nekk koo xamante se ni ku ñu def ci moom alxuraan la mhm. ku ñu def ci moom yar la ku ñu mhm. def ci moom teggin la di ñaan yàlla na yàlla na ko cet seexlu yàlla na àggalee ndawam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba lépp li nga xamante se ni ay waajuram ak ay sëriñam ak ay mbooleem ñi nga xam xamante moom la bokkal mm-hmm. li ñuy yaakaar ci moom yàlla eh, ful ko daal leen koy defal ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ku eh, waajur bu ci nekk mm-hmm. boo sañoon lii rek ngay lii rek ngay ngay ngay ñaanal sa sa sa sa sa sa njaboot mm-hmm. parce que tey yor sa njaboot mu mën alquranul karim macha allah sa nga yor sa njaboot mu am yar macha allah ndax xale nag bu yaroo nekkul sa waajur kese moo ko jur de ñëpp la jur <laughs> <laughs> ñëpp koy jur ñëpp koy ndax da ngay neex a doomoo sopp da ngay neex ak li nga xamante ni mm. mooy bëgg moo tax xale bu yaroo rek sawar waaw ndax boo boo yaroo yoo yaru léppay ñëw léppay ñëw yaru dina sawar dina ñëw mm-hmm. te xale bu sawaree ñàkkul dara ku ko yónnee may ko mm-hmm. waaw kon lu luy waay di def moom lay defal mm-hmm. kon yàlla na yàlla musal ko si cat yàlla musal la si tamit uh, ndog si lépp yàlla gën la dëgëral bàyyi la sa xel ci barke Seydina Muhammad waaye jërëjëf Serigne Fallou Galas si la macha allah taalif na fi lu am <laughs> kii sax tuuti. semaine bi semaine waaw ci lañ war a waxtaanee ki ku ah. tedd ki. Ah. mooy eh, ki nga xam mooy sëñ Modou Moustapha. waaw nga xamante ne moo njëkk a toog ci waaw ñu ngi koy pare ndax màggal Daaru Khoudoss. Mm-hmm. ndax sëñ Modou Moustapha moomu. Mm-hmm. Ah, macha allah yaayam. Mm-hmm. waajuram bu góor waajuram bu jigéen boobu. nga xamante ne mooy soxna Aminata Lo. Aminata Lo xarimaam. xari maam Aminata yàlla te yàlla saa xewar Fatma. Eh, eh sama pochette sori na ma ah. bu la sori woon ma sori na ma <laughs> suñ génnee yore naa la xaalis yow ala yow yow suñu sàmm xamul ni sax na sax na c'est que c'est ñooñu. Mm-hmm. ñoom ñoo moom Kajoor ñoo moom Kokki saa xewar Fatma. macha mm-hmm. allah jàmbaar la woon. Mm-hmm. koo xamante si nii maanaam ba mu demee ba nga xamante si ni dem na ba tiit su tiit ci boppam mm-hmm. ci la dem seeti góor gi ñu wax góor gi mataan Ndumbe ne ko damaa bëgg a tuub mu wat ko tuub ko jàngal ko mm-hmm. dëkk bu nekk mu yelwaan loo ko fa mm-hmm. moo tax mu am moo tax ñu ne Aminata Lo xarimaam xarimaam Aminata yàlla Aminata yàlla Saaxewar Fatma Saaxewar Fatma maay Sénégal may naa la un million <laughs> moo tax kooku nga borom Aminata Lo moomu moo ñu meññ sëñ Modou Moustapha sëñ Baara Mbàkke mi si mi si bi doon bind si waaw moom la ñuy waajal màggalam incha allahu rabbi mais war si ànd ak ak loolu nag dañ koy bàyyi ak programme boobu dañ koy bàyyi ak sëñ xaadim silla waaw sëñ Fallou Galas Silla mhm. waaw sëñ Fallou Galas Silla moom la ñuy bàyyi ak programme bi bu ko mhm. defee mhm. Euh, moom it euh, mu daan ñuy euh, utal waxtaankat bu baax boo xamante seen ñu waxtaan ak moom jëmale ko ci li nga xam ne mooy màggal Daaru Xuddoos nee naa leen daal fii ci Assalaamy TV dara du fi umpe képp koo xamante si nii rek da nga bëgg lu leer li nga xam mooy gingeeku gën a xam yoon wi xamante ni moom mooy ah, li ñuy dund kon yaakaar naa ne kal leen ko ci fi nga xamante ni mooy Assalaamy TV mm-hmm. ci réalisation bi nga xamante ni def nañ ko fi mm-hmm. ci euh, euh, lu rafet yi nga xamante ni ak digital bi macha allah ak mm-hmm. xale yu xarañ yoo xamante si ni maanaam nga am ci YouTube bi di ko am ci box yi ko ci li nga xamante moom mooy Facebook Instagram am ko tamit ci li nga xamante si moom mooy ci rajo bi 99 point 0 kooku moom mooy ki nga xamante ni mooy Assalaamy TV soxna Tàmbe duma bàyyi la gën macha allah xanaa rek di jaajëfal ki nga xamante ni mooy suñ wëlëre nekk fële ci Italie dëkk bu ñuy wax nga ca Milan Euh, nag dañuy tur bi da koy lekk bokkul mm. ñu wax ko mais su déggee mm. dina xam ni moo jëf jëf ju baax ji kon dañ koy ñaanal suñ borom mu fayal ñu ko ci barke alxuraan ci barke Serigne Touba ci barke dëkk bu sell bu tedd bi ñu nekk li mu yéenee daal ba tax xolom yëkk mm-hmm. mu ni kado bii maa ko jox soxna aw buso mm-hmm. yàlla na ko yàlla fay yàlla yàlla ful fi nga xamante ni fi la nekk nag ba fépp ci àdduna bi ñu ñuy dégg mm-hmm. euh, kii di soxna aw Bousso tamit nag yàlla may ko wér kattanal ko barkeel ko bàyyi ko ay waajuram may ko li nga xamante lépp mi ngi koy jeex ci alxuraan. yàlla na daje ak moom ci barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Ibrahima. amiin mhm. amiin euh, soxna Tambédou euh, soxna Awa ma bàyyi la rek nga daal di am loo tàggoo bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi. lan mhm. nga ñuy tàggoo lu gàtt rek. <laughs> Mhm. sallallahu alayhi wa sallam macha allah soxna Tambédou gis nga ko lu mu lu mu lu mu lu mu ñaan mm-hmm. di wax rek euh, xale moom mm-hmm. euh, maanaam dafay dëppook yàlla day ànd ak yàlla xale day jege yàlla mm-hmm. euh, maanaam bu ñaanee rek bu dajeeg allahuma amin suñu borom yaakaar naa foofu toj foofu toj yàlla foofu toj. foofu toj. waaw baax suñu xarit bi ñu ngi koy ah. nuyu bu baax au passage. Mm. Euh, Tambidou ma bàyyi la nga daal ñu daal di yëkkati jotaay bi. xam naa ne li ñu cërale woon ci waxtu euh, daanaka euh, mat na. bu ko mm. defee rek ñu xool mm. nan la ñuy mën a yëkkatee jotaay bi di leen wax rek yeneen émission dina ñëw sax samedi ci waxtu bi rek incha allahu rabbi war leen a beneen émission yu am solo waaye bii di ñëw tamit dañuy waxtaanee li nga xamante si nii moom mooy ah ku tedd ku baax koo xamante si nii moom mooy euh, euh, sëñ Modou Moustapha euh, macha allah nga xamante ne kooko meññi gaynde Fatma gaynde Fatma meññi am sëñ Mbàkke soxna loolu macha na boole dara wax <laughs> sama turandoo <laughs> macha allah loolu yi ma sàmbal sama taaw ah. sëñ Mbàkke soxna loolu lañ ko tuddee ah damaa saf saf daal ko dos ah kon de sama am waaw moom ko saf sàpp waaw xanaa rek di lay jaajëfal macha allah di jëfalaat suñu mbokk internet yi. Mm-hmm. parce que sànq rek ndeysaan ñu ngi bind di wax ni. émission bi dañoo bëggoon ngeen ñu koy defal tous les jours wax ngeen amul problème mhm. mais bu leen di fàtte di abonné mhm. macha ndax loolu tamit am na ci solo am na ci maanaam solo trop mhm. di nuyu nag comme ni ma koy waxee saa su nekk rek euh, suñu mbokk immigré yi du leen fàtte benn yoon ndax mën naa ne lépp ñoom la ndax lii ci ñoom laa ko dooree nekkoon na ñoom Italie nekkin bu rafet macha allah ñu doon ay taalibe doon ay murit doon ñoo xamante ni ñu bëgg yoon ni lañ euh, Masamba bu la bu la màggal Tuubaa fekkoon Italie da naan déedéet waaw macha allah da nga naan déedéet di jaajëfal suñu mbokk yi nga xamante ni ñu suñu mbokk waa kër maam alaaji maa yi fa nekk bamba partout waaw waaw loolu waa Sénégal dañ koy wax mais xamuñu ko ñu nekk Europe ñoo xam ni Bamba partout la. Hmm? maa la wax loolu. ah bëgg naa fa màggal maa la may loolu. waaw maa la may loolu waa léegi day dépendre tonton Fall rek sax wax na màggal bi ñu dem dem. <laughs> di nuyu ñëpp nag di nuyu nag sama genn wàll muy Ousseynou Mbodj maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal. wax dëgg yàlla ndax kenn la ci man. Hmm, hmm, di nuyu Sams maa ngi koy nuyu di nuyu Birame Faye. di nuyu sama mag bu jigéen bi nga xam mooy sama yaay jeetaam du nekk fii ci Ilipor. di nuyu nekk fële ca Kaolack maa ngi nuyu di ko ziar di nuyu sëriñ Fallou Mbacke mi nga xamante ni sët la ci Mame Mor Diarra mhm. di sama xarit sama genn wàll di nuyu ñu ma jógee bàyyi leen sama kër mhm. muy soxna Moussou Keba mi nga xamante ni waaw mu féetewoo wàllum togg mi. <laughs> borom ceeb yi neex. waaw macha allah maa koy nuyu di ko ñaanal suñu borom di nuyu waajurum bu jigéen moom mi soxna Mati. soxna Mati mi maam Awa mën a toog fii ci ñun ak ki nga xamante ni. ki waajuram euh, ni moo koy jàngal euh, sëñ maam Thierno. sëñ maam Thierno sëñ maam Thierno ñu ngi koy nuyu di ko ziar parce moo ñu yombalal. macha allah ndax su dangaloon rek dafay dang. bu tere woon tamit du am. wallaay ah, allah kon ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen mm-hmm. jaajëfal. Mm-hmm. di wax nag ni bu leen tàyyi ci bu leen sonn fii lay xewee. ci macha allah lu ngeen soxla rek mhm. fii lay leeral ci Assalaamy TV di nuyu suñu directeur encore une di nuyu directeur programme di nuyu équipe technique bi nga mhm. xamante ni mhm. ñoom lañ àndaloon di nuyu ñëpp ñi nga ni ñoo ngi ci kër gi di am contentement ak mbégte la wax ni da nga may nuyu waa Kébémer nag saa su nekk sama fans club boobu fa nekk dama lay nuyu waaw dëgg neexul da nga fa am fans club ah, waaw waaye tamit eh, noonu la ñuy santaate yàlla bu baax di julliwaat ci rasulillah eh, ki nga xamante ne moo jekk kaw taamu suuf nga xamante ne yaakaar naa ne képp loo waaye mën a am rek si moom nga ko amee Mm-hmm. moom Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di santaat bu baax a baax a baax eh, ki nga xamante ne mooy Serigne Mountakha Bachir mm-hmm. yàlla yàggal ko fi eh, yàlla bàyyi ko fi nga xamante si ni tey li mu namal liggéeyal lislaam mm-hmm. yàlla gën koo kattanal bu baax a baax a baax ci barke Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam mbooleem xalifa généraux yëpp ñu ngi leen di ñaanal bu a baax fa ñu ne yàlla na yàlla guddal si seen fan waaye tamit eh, soxna Tambédou kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi di wéttalikoo li nga xamante si ni moom mooy Assalaamy TV ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla sàmm leen leen. ndax kilifa mooy li am solo. boo ko amee am nga solo. Mm. boo ko amul amoo solo. ku wéeruwul rek da nga yombagu max mm-hmm. kon yàlla na yàlla yàggal fa kilifa yi moo mm-hmm. xam góor la wala mm-hmm. jigéen côté bu mu mën a toogee rek doon fa kilifa ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla guddal fan bi guddal cër yi euh, di ñaanalaat bu baax borom kër gi euh, di sëriñ euh, galas ah, sëriñ Fallou galas Sylla moom nga xamante ne macha allah ci réalisateur yi nga xamante ne def na ko fii si Salami TV def ko ci télé bi def ko ci rajo bi waaye nag jàppatoo bàyyi rek waaye tamit ñu ngi koy wax ne gaynde la gaynde la gu àndul koy ñaanal bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, ak mbooleem personnel bi nekk ci ginnaawam yépp euh, cat ba geen mm-hmm. euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di mm-hmm. leen ñaanal yàlla yal na yàlla gën leen a dëgëral. gën leen a taxawal waaye santaat bu baax mbokk téléspectateurs yi nga xam dañoo doon bàyyi xel li nga xamante ni moom mooy émission bi. ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di wax rek fii rek lay xewee ci Assalaamy TV. waaye suñu technicien Habib Thiam ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp. ñu yor wàllu li nga xam ne mooy régie. ñu leen sant di leen gërëm bu a baax a baax a baax Euh, bu ñu mënoon jaar seen seen tur yéen ñëpp dañuy jaar seen tur mm-hmm, mm-hmm. waaye bu ñuy tuddee Habib Thiam rek mm-hmm. maanaam ëmbaale na ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax si liggéey bu rafet bi ak image yu leer yi macha allah surtout ça ndax image yi nii man damay xool ba si yàgg man est-ce que kii man la sax parce que man melu ma nii moo tax waaw cadre <laughs> bi man sama toogee xanaa xam du ma bëgg a jóg <laughs> image yu rafet bi soxna Adji Ndoye ñu waaw soxna Adji moom it. macha allah kontaan nañ daal euh, ci ñëpp rek di leen jox dig daje. Mm-hmm. ba samedi incha allahu rabbi tey nag moo nekk premier numéro bi nga xamante ni moom mooy ni ñuy dund. Mm-hmm. ba tax na tamit na ngeen ko bàyyi xel bu baax samedi dinañ waxtaan waxtaan bu am solo. Mm-hmm. jëmale ko ci ki nga xamante si ni moom mooy ku tedd kooku di euh, euh, sëñ Modou Moustapha. màggal bi nga xamante ni mooy premier paire bi ñuy teg. jëm nag ci li nga xam moom mooy 18 safar. ndax màggal googu mooy wane mooy signaler 18 safar. boo leen gisee màggal gi rek ñooy si duñ si paree rek mm. signalé na li nga xam moom mooy 18 safar kon boog yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm salaam mm. Mm. Euh, di santaat ñëpp di gërëmam ñëpp lépp loo xamante ni wax nañ ko mu déranger suñu matadi la waaye lépp loo xamante ni wax nañ ko ah te mu jub jàppal na ne kattanu yàlla borom bi subhaanahu wa taala la kon boog a ngeen jëf di leen jox dig dajee di jaajëfal waa Kawsara Couture waa Kawsara waa Kawsara Couture macha allah waa Kawsara Couture ñu ngi leen sant di leen gërëm <laughs> waaw man moom mm-hmm. man soxna soxna Fat Fat Fat Fat Fat Fat Fat Faye mm. euh, soxna Fatou Faye moom a moom a moom a sañseel lii mm-hmm. macha allah ñi ko ñaanal yàlla yal na yàlla gën a guddal fanam bu baax a baax euh, di wax rek yal na ko yàlla bàyyi suñu kanam ci barke Seydina Muhammad ak njaboot gi yépp jërë ngeen jëf sama gaay merci La <laughs>